dal leen ak jàmm urgent la Seck coordinateur général bu ñoo lank mën nañ ne kat bile yoon dañoo gis nag ñu dal di ko koy foofu foofule ca buntu këram mbir mi ni mel nag daal di xew moom mi nga xam ne mooy Mourtalla Seck koordinateur général bu ñoo lànk benn saret dal lañu gis rek gannaaw bi mu génnee ci biir këram moom mi di Mourtalla Seck rek di génn rek ci mbedd bi la benn saret boo xam ne rek ay xale yu góor ñoom ñoo sa nekk daal di daw daal di koy dogaale mu jàpp ne sax dañuy caaxaan ci noonu nag lañ ko daal di mu daal di daw dugg ci benn kër doota rawale boppam eh, xibaar yi nga xam ne nag moom moo ca topp est-ce jël nañ ci moom dara wala nag am na ay gaañu gaañu lu ci manti am dinañ leen toppal li nga xam ne rek moom mooy information bi wante kat li leer ba leer moom mooy moom mii di Moutalla Seck coordinateur général bu ñoo lànk rek daal nañ koy jot a ci jamono yi ñu toll nii mën géejawaay wàq naa mbir minimel ni naka xew gannaaw bi mu daal di génn ci buntu këram ci ay mètre rek yoo xam ne dox na ko ñu daal di koy dogale dogaale googee nag mën nañ xay xale yu góor yoo xam ne rek ci benn sareet bu nga xam ne sareetu fas la lañu ñu daal di wàccee rek daw daal di koy songo mbir mi ni mel nag moom moo gën a bees jamono yi ñu toll nii ci mbir yi ki nga xam ne rek moom mooy Mourtalla Seck di leen di jaajëfal di leen wax ngeen di wéy di ñu topp ba beneen yoon ñu dikkaat yeneen i jàngat jaa ngeen jëf.